ñoo fa nekk pavage rue yi nee na euh, de ba nee nañ fa nga même bu fekkente ne demeewul noonu sax ci jëfin rafetul monsieur le ministre lépp Sangalkam non xam nga te ñetti village la suma 7000 habitants fa non non da nga complètement non damay la allez-y lampadaire c'est un programme de ans. non mangi, mangi, maa won ci ndax ñaari ndomba tànk nga bolé ànd voilà ñaari ndomba tank amul problème Fi ci Sénégal ak ailleurs d'ailleurs man nañ dañuy liggéey dara manqué wul ci suñu liggéey commune dara manqué wul ci suñu liggéey gouvernement Ce fekkante ne dafa am fu sooxe way ñu wax mais ben sooxewul ben. bon ministère yi nekk maire ministre yi nekk maire dañuy délégué liggéey bi au niveau de la commune. non vous savez il y a un bureau municipal man par exemple tous les documents de la commune man m'a koy signé tous les documents tous les documents. tous les documents mais la pourquoi, la première question là elle est fondamentale. Euh, question question Mohamed, par rapport au cumul des mandats c'est-à-dire que moi, avons dit que maire c'est une fonction en temps plein une fonction en temps partiel sorry,

nek ministre man nga nekk président conseil départemental nek ministre té benn ci ñom ñaar du soxé c'est une équipe qui travaille et puis question wóolute la mhm. question wóolute la booy nekk meeru Sangalkam te tëb rek ni da ngay nekk meeru Sangalkam man depuis 2002 ñu may fal même bu amé interruption yo xamni c'est par des délégations spéciales au plan politique ça yu ma defee sama liste gagner fofu waxuma gagner fofu rek mais gagner 4 C yooyu yëpp